ak teew fii góor jigéen mag ndaw rawatina chef village ak conseillers yi ak notable yi toog fii ci bâche bi yëpp di sant population de Falokh ñëw nañ en masse Thierno Ndiaye yaa Seydi maire Médor nga xam ne yaram dafa sutante ñu ngi sant di la gërëm ku jë Ndiaye yi par aram ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu leen sant leen gërëm gis naa ak Père Ndaw ñu ngi sant bu baax a baax di leen sant euh, di ci teg parce que lii bu ma ko ñoom ñoo di sama jox di sant ku ne xam na ni campagne bi suba lay commencé ñu bàyyi seen levée de fonds bàyyi leneen ak leneen ñëw teew fii waaye di sant ki nga xamante ni képp kuy patriote fii ci département bi mooy seen njiit muy docteur Guèye li mu li bàyyi Modou wax sànq ni du fi gan téeméeri dëgg la bi may lancé sama mouvement bi fii M2M boobu boobu nekkul ma Pastef moom ak délégation bu mat ñoo fi ñëw a ngi koy fàttali kon gayte ñu ngi lay jaajëfal sa taxawaay bi ko tey kon lépp li nga xamante ne ñu ngi koy namm si yow yal na ko suñu borom def bu ma jógee foofu damay sant allié boo xamante ni moom samedi passé weekend bi la ni damay ñëw jàppale Pastef dama noonu na ni kat gars yi investi nañu ay député ba pare kon man du ma nekk député kon kooku intérêt boppam taxul koo ñëw Pastef muy ki doon wax sànq da Daouda monsieur Daouda Thiam ñu ngi lay sant di la gërëm ci pas-pas boobu ak dëgg boobu nga am ba ñëw ci ànd ak Pastef ndaxte kat gaa yi ñaare bu ñuy ñëw dañuy ñëw te waxtu wax ndax yaakaar ku leen tàbbi kon yow tey say intérêt boobu taxul laa ñëw liggéey moo la fi indi di sant aussi délégation bi ma àndal euh, Pape Diouf mu ngi fi ñu bokk koñ Alassane mu ngi fi di sama promotionnaire Awa mu ngi fi di sage femme hôpital Mbour waa jot na TV ñu ak ñeneen ak ñeneen waaye damay ñëw ci délégation bi nga xam ne ñooy jógee Dakar te mon ami le directeur général docteur Ousmane Cissé jiite ko Ousmane képp kuy agent au ministère de la santé tey mooy sa kilifa moo xam ci district nga nekk moo xam ci poste de santé nga nekk moo xam ci hôpital nga nekk moo xam ci direction nga nekk au niveau national. ànd ak suñu frère docteur Bakary Dior docteur Bakary Dior mais ca bureau Ousmane Sonko lay liggéeyee moom mooy xelal Ousmane Sonko lépp li jëm ci wér gu yaram moo nekk ne toog. kon ngeen xam ñu ñëw fii ñooy ñan ànd ak seen jigéen Marie Ange ñu ko investir mooy quatrième position ci liste nationale bi ma toog nii. kon ñooñu ñooy délégation bi donc délégation boobu docteur Ousmane Cissé moo ko jiite Ousmane Cissé nag liñ mën a wax si moom bari na parce que man dama koo xam avant sax ñu ñëw nguur opposition. femelle bi ma ci mën a joxe lu gàtt mooy diir bi Ousmane Sonko di nekk nemmeeku tur ci département bi lu mu guddi guddi guddi sama kër lay fanaan mu bay hôtel ak néegam ak salle de bain ak climatiseur ak léppam ni ma sa kër laay fanaan bu jógee Fissel wala Caajaay wala Somone ba nekkal Ousmane Sonko xool yaramam def li muy def ba pare jël otoom ñëw bu xëyee demaat kon Ousmane am ñu sa ñu ngi lay jaajëfal moo tax sa ñëw fii bettuma parce que xam naa fi nga toll mu amoon xar-xar yu bari ndax tey fi jaar bari na sànq ay 16 heures ñoo koy woo dañu ma maa ngi tey ca Touba bu jógee tey wala ñëw Fissel ndaxte moom ngar santé gi ñu bokk di yëngu dañoo am octobre rose bu doon def Fissel mu jaar foofu ci gars yi jógee fa ñëw fii sànq mu ngi naan ma daa war a def Kër Massar ndax dafa am distribution kit scolaire yu ñu fay joxe mu war fa teew kon kooku amul temps loo am si moom rek doy na kon ñu ngi lay ñaan mission bi na suñu borom dénk nga matale ko waaye di la wax ni poste bi jox nañ la ay doléance mën naa ni sax jox nañ ñu ay doléance ñun yëpp lu ci mel ni appareil échographie bi du tey laa ko dégg ma lay wax ni la nga waxtaan ceeg waa direction santé de la mère et de l'enfant docteur Doucouré ak ay partenaires am ñu dox ci lu mel noonu wax nañ ñu aussi centre de santé Gaye wax na ko fi Malicounda mu ngi ci soixante dix mille habitants amuñu médecin public tey boo bëggee faju fii Malicounda ci médecin da ngay dem Mbour wala feneen wala Dakar wala Thiès. Nous euh, ma la ko OMS na habitants nekk médecin ñun ci habitants kon médecin bien. ndax politique du Sénégal nous avons tëddee médecin ci centre de santé rek la mën a nekk waaye des ñëw moom mi nga programme mandat ñu médecin bi officier ci poste même bu poste aussi mu nekk ay poste santé loolu moom mu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax bu loolu wéyee damay ñëw ci li xale yi doon waxtaane sànq muy feebaru sibbiru feebaru tuberculose ak feebaru VIH sibbiru programme bi ko ngang dani pour nga xeex ko da ngay tëdd ci moustiquaire wala ngay moytu lépp lu mën a indi matt matt yoo comme programme bi loolu la wax ak yeneen stratégie yu ci mel ni chimioprophylaxie de l' enfant mais yooyu ci ay yenn gox lañ koy def yu ci mel ni Kédougou ak Kaffrine ak yooyu fa nga xam ni fa la pali bi gën a bare waaye bi ci gën a am solo mu ne jigéen gu wérul ak xale nga xam ni foofu la ñu am jafe-jafe ci sibiru bi ñu ni kon ñooñu la ñuy prioriser suñu doom yi ñuy def moustiquaires yi ñu jox comme daanu matul suuf xaw ma nu ko olof di waxee daal lu dajul suuf kon dañ koy jox ñi ko gën a yelloo maanaam jigéen ñi wérul yi ak tout tànk yi amagul juróomi at ñooñu lañ jox moustiquaire yi ah di ñaan yàlla nag mën a dolli yóbbu feneen ak feneen ndax Malicounda yaatu na te nag ñun taxawaay national lañu am taxaw action bu ñu war a def fii bu ñu war fii moo ñu war Sénégal fépp parce force nationale lañu yor muy Kédougou muy Ndakaaru muy Kër Momar Sarr muy Louga muy feneen ak feneen kon ma dikkaat si euh, feebar yooyu am a ku ko wax léegi ñoom la muy sàkk ay ay ay sensibilisation ay formation ak ay dépistage donc lii rek day tàbbi ci sensibilisation. wañ ni gis ci lay commencé parce que tey jii. dama ne woon sow ñun dinañ fexe ba daray politique du ko feeñ ndaxte dinañ ormal bërëb bi ngay xam ni fa la ñuy ñëw moo waral solo ñu fi te seetu Ousmane Sonko solo ñu fi te seetu Bassirou Diomaye ay t-shirt de sensibilisation boo leen gisee ci ginnaaw dañ ni mën nañoo dundoo doomu jàngoro bi te doo ko wàlle dëgg la parce que yow bu ragal dépistage bi ay nit a ngi yor doomu jàngoro bi gën maa wér gën leen a wér yéen loolu damaa bëgg ngeen xam ko parce que Sénégal dañuy jàpp ni bu ñu nee sida moom kooku moom deel déedéet kooku moo la gën a yow bii di doon doomu jàngoro bi bu dee jël traitement li ñuy wax ARV kooku dana dem ba dem ba dootu ko mën a wàll même bu dee sëy sax mënatu koo wàll jëkkëram mënatu koo wàll borom kër parce que dal àgg ci li tubaab di wax charge virale supprimée kon tey toll nañ foofu kon dépistage bi amatul luñ ciy ragal te Sénégal daf ni 2030 dafa engagé wu ci ni ko yeneen réew yi defee ni 2030 sida day jeex Sénégal sida day jeex doo ko déggee mooy ci am sida néewul day wér mais kenn dootul am sida ci ci ci bees maanaam li tubaab bi wax dootul am nouvelle infection ñi ko amoon rek ñoo koy am di jël seen traitement mais keneen du ko am li tax keneen du ko am ñi ko amoon bu ñu demee ba ñoo mënatuñ koo wàll ndaw ñi xam li koy moytu ñu li koy joxe ñu moytu ko mais keneen mënul ko am ñu fexe bu benn jigéen dootul jur doom buy jox euh, am sida parce que ñoom baax ñi dañ leen formé ñu xam loolu ñoom jigéen bu wérul dañ la naan kaay nga dépisté soo amee jàngoro bi naan ay garab ba nga xam ne doo ko wàll sa doom boo ko naanul dañ ko ko wàll kon moo waral ñoom ñii dañuy liggéey lu bari si ñoom di leen jox ay test teg ko ci maternité yi te ko ci salle d'accouchement yi teg ko ci salle de consultation yi ba nga xamante ni fépp nga xamante ni buntu wax mën nañ faa tester lépp ñu kon may wax ni suñu première prochaine action fii ci Taaxo mooy ko kenn ragal ak feneen ak feneen gën nga am ko te xamoo ndaxte boo amee xam loolu laa ko waxtaan ak yéen. leneen li may dolli mooy euh, commissaire li tax ñu koy woowee commissaire xam nga ñun Pastef commission yu bari yi la ñu am. justice éducation santé képp ku jiite commission commissaire lañ lay moo tax ñu koy wax commissaire de santé. tur boobu nag laa tànn tànnuma sax DGS donc commissaire ñu ngi lay jaajëfal ci euh, sànq maa ngi naan la xanaa da ngaa yi mu indi 600 t la indi pour jàppale ñu ko ci campagne département de Mbour te def na ko Foundiougne def ko Ross Béthio def ko Ndar def na ko fépp Sénégal mu ne fépp nga xamante ni investir nañ ko benn membre dina jël photo moom photo euh, Sonko photo ki ñu fa investir ak photo ki nekk ci commission santé bi nekk ci gox boobu def ko ci t-shirt bi moo waral t-shirt yi mu andi photo ma photo Ousmane Sonko photo Diaité ak sama photo def na ko Fatick def ko feneen Sénégal yépp kon nag day ñaan ni moom bis bu Ousmane Sonko campagne bi démarré Ousmane Sonko di dugg Mbour na ko waa Malicounda yépp sol ñu fekk Ousmane Sonko fu mu jaar ñu topp ci kon foofu daal lay tëjee di sant di gërëm yépp gërëm ngeen jëf kontaan naa sama xol sedd na guy maa ngi leen di sant waa Tiwaawan ñu ngi nuyu képp ku fi nekk ci sa tur ak sa sant notable yi fekk ci dëkk bi

du jafe parce que dama ko xam lan laa xam ci Maguette Ndoye Ndiaye bi ñuy njëkk a gisee dafa fekkoon ñuy tëgg programme bi jëm ci élection yi ñu war a daje am lu ñu commencé mu woo ma ni ko justement comme que yow économie de santé de la santé nga jàng dafa am benn thème bu ñu bëggoon a nga defal ñu ko temps bi nag xat na soo ko defee bu mënee baax na soo ko baax na.

donc moom li mu yor ci man la bokk kon xam naa ni mu ko yoree te chaque instant ñi ngi daje sama bureau wala bureau di ci waxtaan pour santé bi gën a ñoom te maa ngi liggéey jëm ci liggéey mucc na ay maa ngi ci remercier di ci félicité di la ci encouragé en ni nga ko yoree dal na xel dal na xel dal na xel su ma paree ci loolu yombalal nga ma wax bi sama xarit parce que présenté nga équipe bi ma àndal muy docteur Thior du conseil en santé du président Ousmane Sonko à la primature ak sunu candidat di ko ñaanal yàlla mu nekk honorable député comme ni koy ñaanalee docteur Diaye muy Ange Marie te mu def Kër nekk fa responsable politique. balaa may ñëw ci sunu responsable yu mag yi muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye di sunu président ak Ousmane Sonko. ñoom ñaar man dama leen di jox doléance parce que ñoom bu ñu nekkee ay député santé li ñu koy nattal ci at ni li leen ciy def ñoom ñii ñoo koy foto docteur Diaye te docteur nga Ange Marie tey ànd nañ fu bari ci ay structure de santé gis nga li fa sooxe kon boo leen yokkalee budget bi dina tax lii màggeen looyu yaay mën te jëlee ko ci poosam dina ko gën a mën trois cent yi fi andi woon peut-être déwén lay nekk wala deux mille problème bi nekkul ci Maguette Ndoye Ndiaye mais ci suñu député yi ñoo ñu war jàppale ba ñu am budget bu gën a am doole. fi may mujjee nag mooy remercier képp kuy agent de santé nekk ci gox bi di yëngatu nekkal fi ministre bi nekkal ma fi maa ngi lay sant di la gërëm di la encouragé wax ni seen i doléances ko jotee lu ci mën dinañ ko taxaw pour mu faju parce que li ñu fi andi lenn la saafara. jàngoroy askan wi mi ngi commencé di xam ko te pour ñu ko yéen ñi fi teewal santé yéen ñu ko mën a wax donc ñi ngi xaar seen note écrite pour ñu mën ñu am ko il ñu am assemblée nekkul du laam-laamee bu ñu amul assemblée Sénégal dina. naqaree defar ci ñoom. te dafa am lu ñu dig Sénégalais yi toog leen seetaan ñun ñi leen jox réew mi na leen jox assemblée bu ñu ko jotee gëm naa ni fi ñu bëgg Sénégal egg fa dina fa egg ci domaine yëpp rawatina ci santé bi ñu nekk man Dieye Dieye ak Madiène Ndoye Ndiaye sama xarit di sant ñëpp di jërëjëf